Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, des documentaires, des publi-reportages, des exclusivités. Jigéen bu kaare man danaa koy woy leen ko bu doon moom woy leen man danaa koy ñi naan cër bi jigéen bu kaare leen ko jëkkër jalaay xalaat ne bàyyi ba mën nagan salaamaaleykum sama mbokk internet yi ginnaaw bi ma leen nuyee ku ci nekk sa tur sa sant tey nag dañuy ñëw ci émission bu bees tàkk bu tudd spécial tamxarit spécial tamxarit nag bi ñu ko waxee lépp lu ëmb tamxarit rek la ñuy jël teg ko ci table détaillé wante nag lu gën am solo mooy wax ci diggante tamxaritu démb ak tamxaritu tey ba tax na dañuy dem doxantu seeti mag ñi baax ñi ba tax na tey dañoo ñëwoon fi nga xam ne mooy Pikine fi nga xam ne mooy Pikine Canada seeti suñu papa xam ne mooy Doudou Yaye Katy tey nañu ñëwoon seet si ko fi nga xam ne mooy Canada pour ñu wax waxtaan ak moom li nga xamante ne mooy tamxaritu démb ak tam xaritu tey mu indi ñu si ay leeral wax ñu tamxaritu démb li ko suñu maam doon féete ak tamxaritu tey ni ko xale yi di féete ba tax na papa salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi leen di fay. papa yaa ngi si jàmm. yàlla na àddina bi yëpp am jàmm. amiin papa tey dañ laa seet si woon pour waxtaan ak yow ci spécial tamxarit pour waxtaan ak yow li nga xam ne mooy tamxaritu démb ak tamxaritu tey ñu bëggoon ci waxtaan ak yow nga indi ñu si ay leeral yu bari xam nga àddina dafay soppeeku. nit ñi ñoo soppi seen bopp. ay àddina moom soppeeku fa mu nekkoon ba tey mu ngi fa. parce que ñun bi ñu nekkee xale di tamxarit boobu mag ñi sax dañu tamxarit. di fo di sàcc ay ginaar ak góor ñu sol yére jigéen jigéen ñi sol yëre góor ñuy tamxarit di taajuboon waaye li ko tamxaritu tey moom xale dañ cee rax ak ak caay-caay dañuy solu di agressé ka sàcc ka def lu ne bokkul ak bu démb bu démb nit ñi ñoo daan jóge secteur par secteur secteur bii jóge fii dem fële bale secteur ñëw fii parce que ku ne xam ne nga say doomi xayet say doomi dëkkandoo waaye léegi woy yu den cee raxandoo boole ci di sàcc ka agressé ka toj bitigu jàmbur te loolu teguñu ko fenn tam xarit ci suñ maam la jógee moo waral taaja boon taaja boon nag soo ko gisee mooy baaxantal ñu ko ko suñu ay maam ndax boo ne tabaski ne tam xarit gàmm màggal yooyu yëpp ci sunu maam yi la waaye tam xarit dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci doomu aadama lu ñu si fekk te mi ngi bëggoon mi ngi bëggoon nelaw par ñi koy nelaw mooy ñu ci rax lu ci bokkul déguisé déguisement te li nga déguisé yëpp rien que pour def nekk malfaiteur la dogale woto jàmbur yi yeeg tam xarit du du par force maanaam taaj du par papa li nga wax foofu am na solo mooy déguisement bi ñu wax ci wàllu déguisement bi ndax déguisement démb ak déguisement tey du benn léegi tey da ngay gis góor bu déguisé wu mel ni jigéen xam mel ni jigéen génn ci mbedd bi mooy loolu est-ce que déguisement yu metti yi léegi liñ ci boole liñ ci boole taxul ba jeunes yi dañuy am envie sax doon jigéen. dégg jeune bu dof dof loo nekk fi jigéen su bopp nga koy def rek ku ko weddi laajal kooku ñu def ci journal bi te muy fecc. walaayam waaye déggoo may la dem cosaan lañ doon def léegi booy dañ cee raxalu ci bokkul genn waag yëpp sont que des malfaiteurs ay agresseurs la ñu dañu déguisé wu yi que pour agresser oto jàmbur yeeg wala nga gis ñu tàpp sa woto fii ngay xool ñu sàcc la fële taaji bon dafa nekk loo xam ne bun reeraan ba pare ba këpp bool yi bool bi doon lekkee ñu dëpp ko mag ñi di wax di dëpp di ñaan sa soxla di dëpp di ñaan sa soxla di dëpp xale yi ak ku nekk def ko kër gi yëpp daj waaw ñu jël ndox bi tuur ko ci buntu kër gi ba ñëpp raxasu léeg-léeg am nañu ko daan sangoo sax wala ñu ko pour ku feebar ñu la ciy diw ak seen waaye léegi man li ma gisee tamxarit am na ñu ko respecté nag ba tey ñu ko respecté xam nañ ko la plupart du temps mooy euh, ñi nga xam ne xam nga li naan roy dàq. di roy te li ngay roy nga nga war ko roy mu tegu ci yoon nga roy ko jaar nii li gën a gàtt daal na nda ci Sénégal yëpp bàyyi xel ñi ci ëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di taajaboon léegi xale yu ndaw yi ñoom dem ñu ngi taajaboon parce que ay magum jëm daanoon taajaboon di demante ka dikkalante maanaam di jox ay reeru tam xarit di laaj reeru tam xarit ñoom seen la la maire daan def ñoom ñëpp di laaj leer tabaxat ci seen seen wujj yi ñaareel di dem ci awo yi awo yi di dem ci ñaareel yi ñetteeli consort ñuy joxe reeru tam xarit daa gis ñoo xam ne sax dañ joxe ay yére ay sëru rabal ay sëru njaago ñuy joxe xaalis léegi man rendement laay gis loolu xale yi nag rax ci lu ci bokkul pour nit ñi bàyyi ci xel aussi ki ñëw di taajaboon ak ki ñëw di sàcc bokkul kii gàmmoo kii raas de moo bokkul li cëpp xale yu ndaw yi ngay gis ñuy taajaboon di dugg ci seen kër ci tante yeeg ñoom seen waaye mag ñoo ko daan def genn wàll gi xanaa ci kaw gi waaw maanaam wala ci dëkk yi nga xam ne fii dëkk religieux am na waaye Dakar moom kenn wàllu ñuy taajaboon bon yëpp sont des agresseurs dañuy fëgg sa woto sax nga gestu ñu sàcc li kanam woto suñu waxtaanee ci changement boobu euh, xale jigéen yi léegi taajaboon euh, dañ ko changé ba nga xam ne comme li nga wax sëru rabal yeeg yëre yi ñu doon jokkalanteeg yooyu yëpp amatul léegi dañuy ñëw tibb reer yóbbu jeex na jàng ko ba léegi cere yi sax mooñatuñ ko xale yi mooñatuñ cere dañuy dem jëndi cere waaw xam nga loo jàngul doo ko mën loo jàngul mënoo ko école sax boo jàngul alphabétisation bi doo mën prononcer les mots li nga gis mag ñi daan ko def loolu ci boppam nga war a roy muy lu baax mais lépp looy def ndar ci caay-caay rek du sotti nit ñi nag ñoo war a yeewu bàyyi seen xel bopp li bàyyi sa xel bopp mooy xam kii ñëw di gàmmu si ak kii ñëw di raas dem da ngay gis nit ku ak dama lay jox benn exemple léeg-léeg nga dugg rapide wala nga dugg commandé car nga gis ku yiw sol lu rafet a rafet a rafet te xam nga lu mu defa lan ca te nekk si poche bi fu mu lay jógee sàcc la mooy genre ta tam xëy léegi genn wàll gi yëpp taaja moo na tunu taaja moo su ñu bëggee dégg foofu papa li nga wax maanaam taaja boon dañoo yàq valeur am. bien yow xam nga kon li ma bëgg a wax dañuy dañu dañu fàtte cosaan gaa fàtte na coow wala boo demee dëkk bu mel ni Banjul ba tey cosaan la ñuy def voilà am na dëkk yoo xam ne aussi fii nii commanderais encore ay Yoff ak ay Tëngéej ñoom seen genn wàll gépp cosaan la mais fii ci capitale bi nii Dakar moom genn wàll gi yëpp sont que des agresseurs je parle en haute voix et je le redis en xam naa du ma xale j'ai 65 ans gis naa lu ne dem naa fu ne xam naa lu ne boo ma laajul woon aw ma jot wax sax waaye comme que ay xale ngeen bëgg a wax xam aussi. saam moom xam na li may wax parce que fii ngeen ma fekk nii 63 lañ ci tox si jógee Grand Dakar ay numaan sama maam moo nekkoon ci jumaa jii di nodd alaaji mbay mbay démb man cosaan il faut nga respecter ko pour xam ko waaw la plupart du temps dafa am ñoo xam ne da dañ ci da ci da ci kii dañ ciy ruu mandat lu ci bokkul. Mm-hmm. foofu bu ñu déggee foofu bu baax li nga est-ce que nekkul ne parents yi léegi ñoo yaratul seen doom ci cosaan ba na xale yi léegi ñu bëri xamatuñu cosaan xamatuñu valeur tam xarit xamatuñu cosaanu tam xarit ñoom daal nañ lekk cere ba suur solu solu seen dëgg day génn. li nga may laaj tontu nga ko. xam nga il faut avoir l'éducation de base pour ah pour mieux éduquer tes enfants léegi xale yi ku ci juddu bu sa yaay waxee ni koy def rek dem sa yoon. li gën a gàtt nit ki moo war a xam boppam su ma man su may doom ku ma ci xool sax nga xam lan la la wax barki Mouhamed kenn ay woy ci sama doom yëpp muy xaadim ak sama benn doom bu jigéen bi gaañu ajara waaye tout le reste kenn xamu ci woy ñëpp nga liggéey ñee ngi Norvège ñee ngi Banjul mais il faut nit ñi c'est fàttali quoi démb xam ne nii nga war a jaar bul jaar fii boo fi jaaree ñu agressé rek bu fa jaar. te un homme averti en vaut deux. que les Sénégalais se réveillent yeewu xam naka la ñi juddoo fii ci capital bi laa wax de maanaam ci fukki penc yi ak ñaar yi nekk léegi fi nekk am na ñoo xam ñoom dañuy taajoo boon correctement ñi nga gis nag ñoo dafa am ñu ci ñu ci ñu koy ñu ciy bokk bokk boobu te bokkul bokkuñ ci da ngay gis ay groupe agresseurs yoo xam ne seen ay gant lañu yor rek di dugg ci biir nit ñi. loolu nag ci nit ñi bàyyi xel bu baax a baax a baax xam kiy gàmmu si ak kii raas dem na nit ñi ko rek avoir l'éducation de base pour mieux éduquer tes enfants ñu xam ne Taajo Bon fi leen ko fekk fi leen koy ba yàlla yàlla defal jàmm Sénégal yépp ñoo ko déggandoo ñoo ko déggandoo bàyyi jar na bàyyi xel jar na bàyyi xel jar na éduqué waat xale yi xamal leen waat suñu suñu tradition xamal leen li ci tradition wu taajaboon luy valeur wu taajaboon ndax ñu joxaat ko valeur comme ni ko suñu papa waxee waaw papa looy wax tey tamit euh, ñi nga xam ne ñooy doog a dugg ci sëy euh, xamuñu mooñ cere mu ñu jël ñoom daal dañuy dem ñu mooñal leen wala dem ñu jëndal leen ñooñu loo leen ni wax pour ñu gën a xam cere defar cere sa bopp mooñal ko sa bopp mooy vraie tradition bu taajaboon ka dem ñu lay mooñal. wala ngay jënd cere. wala ngay jënd waaw dafa fekk ne yaa booy loo jàngul doo ko mën rek. <laughs> am na ñoo <laughs> jë ñu mooñ koo ci mooñ loo cere du la ko defaral xam nga dafa cere càq ak cere ju sew ak genre cagri yi il foo na nga jàng ko pour mën ko man su ma neexee damay dugg ci waañ bi man du sek su ma jabar a ngi su ma neexee damay dugg ci waañ wi dama doon yeewu demal sama bopp marché ñëw dugg ci waañ ñu ne ko toogal nga xool. ndeysaan ndeysaan barki Mouhamed. te bu ma daal dugg marché poisson laay duggee ji wala seeraas. waaw lu bari jàngal naa ko ko waaye lu bari xam na ko moom ci boppam mooy mooñal boppam di daal toog di ko seetaan mën naa mooñ mën naa araw. lu jar a bàyyi xel jar a xel ndax jigéen defe naa bu ñu lay jàngal togg wala dafa war a mat. nga war a jàng mooñ mun a mooñal sa boo xam nga maanaam ñu takk la nga sëyi sa jëkkër wutal la appartement wala wutal la kër ngeen toog tam xayit jot nga dem di jënd cere la jàkk way dem. <laughs> gàcce la. <laughs> lu tax jàngi woo ko wala sa yaay jàngi woo ko. dëgg léegi déedéet gars yi dafa doon njuru ko naa leen da day jur rek ñu bàyyi la ngay taxawalu est-ce que nekkul te tubaab yi ñuy roy ak yooyu moo ñu yóbbee lii. kay ma wax la tubaab yi est-ce que ñoom dañoo roy olof yi. mukk mukk amul roy sénégalais yi. non amul amul. gis nga commande Norvège ak Paris bu kii commande bu kii jotee bu tam xarit jotee dañu koy jëndi am na fu ñu koy jaayee dañuy dem jëndi ñoom cere jënd yëpp indi kër ga waaw mel na Norvège su mel na Paris ci ñoom Petit Mbay. ah mais xale yi ñoo jàngatul loo jàngul mënoo ko il faut nit ñi di jàngal seen doom àddina foofu tamit est-ce que duñ laal tuuti ci parents boo yoree sa doom bu mat war a dem sëy xam ne kii jigéen la war nga ko jàngal lépp war nga ko jàngal mooñ ñemeloo ko wàññ ba nga xam ne tey fu mu dem sëy maanaam doo am gàcce daal loolu tamit que du côté parents yi. ci kaw bu déggee ndigal waaye xale boo xam ne bu sa nga ne ko maa ngi ñëw dem naa sama yoon yor sa ku mbay wër rek loo ca góobee gar ko. lu léeg-léeg nga dégg nga ñu ne violé na woon agressé nañu chaque jour nga dégg ko lépp ci ñàkk déggal sa ndey la képp ku déggul ndigalu ndeyam rek wéy ci mbugal da toogal sa wetu yaay xool ni muy mooñe ni muy toggee ah bu pare nga raxas bool di ko xool di ko surveiller bu baax a baax na ngay jàngee kool nga jàngee ko soom waaye li sa yaay di liggéey pour mën ko boo gisee may for li woy naan doomay doon bàyyi sa tey doon maam doom jigéen mooy doon ndeyam. di nga dem ba sa yaay dootul am jotu togg yow yaa di togg. boo demee ba am ak ak ñaata at ay fukki at ak ñett fukki at ak war ngaa mën a toog bu baax a baax bu nekkee daa nga toog sa wetu yaay di xollee ka upp ak ñoom seen. damay xale léegi talatuñ ko léegi seen téléphone yi la ñuy tal de la ñuy gën a xool. man boole ma ci baax. sama doom boo yor sa téléphone di golo golo lu ma la faale. booy génn may dindi piis bi. <laughs> papa loolu sévère na de. waaw si punition la bu sévère. bu bu bu. koo xam ne nii rek nii la dëkkee ci télé télé kii bi télé bi. Mm-hmm. whatsapp yeeg xeetu application. nga defoon day woote. Mm-hmm. ndekkee ma ca xaw ma whatsapp ak youtube ak ku ko ci bàyyiwul. Mm-hmm. doo mën cere. <laughs> boole ma ci wax ju bari. loolu <laughs> ci bi. loolu ci rek wala mémoire bi. mais am na solo. il faut xale yi. xam seen bopp. aussi mag ñi di jàngal xale yi. dëgg la waaye koo xam ne exemple dama lay jox boo xamul sa ndey xamoo sa bàyyi doo mën a am éducation de base qu'on soit correct dans la vie nit ñi nañ dellu yaraat xale yi ni mag ñi daan def léegi xale yi ku ci yow yaa ngi sol xam kola laak boo di jigéen góor ñee daan doxaan si léegi xale yay doxaani loolu yëpp euh, nekkul ne day bu ñu demee ba xale jigéen ñi dem di doxaani góor ñi est ni ko maanaam jot ak temps ak liberté bi ñu am parce que tey jii bu fekkee yaa ngi sa wetu yaay nekk ci waañ bi di xool sa yaay lu muy mooñee lu muy arawee lu muy toggee cere muy baasi beeg muy cere kii bi cere bu xonk beeg lépp euh, est-ce que nga am jotu dem seetu góor. dama ne yàlla daf ma suturaal parce que sama ñaari doomi jigéen ñi ma fi yor nii muy faama ak aw mbay ku ci nekk maa la mais jébbale la yóbbu la nga sëy même pas deux mois. fii ci koñ bi la nga leen la ku ci nekk ma jébbali naa la nga ndekk jàng sa jëkkër ñëw wox ma nit ki il faut avoir l'éducation de base yaa booy pour mieux éduquer tes enfants yar te tuuti la gis nga garab boo ko boo ko jëmbatee te doo ko jubbanti day dëng rek xam nga léegi rek xam nga poto làpp dafa jub mais boo jën jëmbatee garab bàyyi ko ci sa gom fu nekk ngelaw li jëmale ko fa du sotti da ngay jox sa doom nii ngay dundeek nii moytu lii dafa lii tegal sa tànk fii waaye bu nekkee yow mi kilifa am dafay muy gis ngay def naka naka sudul noonu dafay defe ne loolu ngay def mooy yoon moo tax ma waxaat ko yàlla suturaan na ma ba sama jaar doom jigéen yëpp ku ci nekk may naa la nga sëy muy ma Top ak aw mbay ñëpp ku ci nekk jànq nga mais léegi maa ngay dégg sax laabaan wala nga dégg léegi ay mariage gëj sax nga gëj a dégg foofu ak kuy sëy xam nga bu nit daan sëy dañuy gaare woto yi ñëpp dugg ci dem kañ nga gëj a dégg ceet yow. amatul ma ngay sëy xam bu daan sëy ñu naan. coro biige bu kaare man danaa koy woy ko bu doon moom woy leen man danaa koy ñi naan coro biige bu kaare woy leen ko jëkkër jalaay xalaat ne bàyyi ba mën na gan pour won la leen daan def wala nga xëy jébbale la ku mel ni am ak aminte gi yàlla ko yàlla yéreem ñëw ak ku mel ni ku naan da wax da daaro mbay jabar sum pap vie sang fay ah. ak ñeneen ak ñeneen fàtta ko bu kaw la ñu daal kañ ga gëj a dégg laa ban rek amatul moom raat déggoo ko raar na da ngay gis ku takk sa jabar nga ne hôtel ngeen demee yow dañ laa war a jébbal lal njoor gi nga gis nga jànq bu dee jànq yaa xam bu dul jànq yaa xam waaye léegi-léegi pharmacie sax day jaay ndaw soo demee jaay la ko. voilà loolu mooy wane léegi Sénégal cosaan bi dañ koo jël tegee ko à côté ñëw def seen modernité dund seen tund boobu. ku déggul ndigal wéy ci mbugal rek xamul tax jaaral yoon bii moo gën a gàtt pour nga dem fii nii Géejawaay nga ne yaa ngay jaari marché njaareem wala yaa ngay jaar xaw ma bax daat la. bu ñu yéex ñetti mbaar. buñ la agressé yaa tooñ. yaa tooñ la wéyoo yaa tooñ. dafa am heure bu xale bu jigéen di génn ak bu muy tëdd si. léegi boo demee boite léegi-léegi ma dem woy sénégal sénégalais dama naan damay tiit sax damay gis ñoo xam ne dama naan ñi est-ce que seen yaay moo leen bàyyi. wala ñoo bàyyi seen bopp. am na aussi ñoo xam ne seen yaay daf leen di dugal ci lu bon. di leen yebal ñuy def yi bon. te nit ki war na sàmm boppam ngir ëllëg mu xam boppam nit ki doo war na sàmm njabootam bu baax a baax. ëllëg la yàlla laajee nga xam looy la yokk. mais ma tuuti mes xam nga mosoo gis doomu kanaara bu ceeli fëkk xam nga lu tax da leen di jiital topp seen ginnaaw ginaar nag moom lu ko neex lay def moo tax nga gis ceeli bi këf bennam yóbbu mooy ñàkk a dégg ndigal gi. Sénégal dafa nekk dëgg boo xam ne bii dëkku diine la dëkkul islam la ay mag ñu baax dong fi ne mënoo tudd kenn bàyyi ka ca des ku ci nekk fa nga ne dafa nekk dégg nañ la li ci wax mooy xale yoo déggatul ndigal rek te li may faral di wax ne ku déggul ndigal wéy ci mbugal moo ci ne muy góor geeg jigéen jee ci yam nit day am kilifa sama maam daan na wax ne ku amul kilifa jënd di sa kilifa. am na solo. dégg ngeen wax ku ku déggul ndigal way ci mugal ku amul kilifa jinne doon sa kilifa kon toog leen seen wàccu yaay mu jàngal leen moo jàngal leen cere ngeen xam lan mooy valeur tamxarit ngay ngay dem Dakar xam nga oto léeg-léeg nga gis ay ay wayu baare kook ñoom seen boo jaar ci APS bi nag loolu du la ca fekk te yàlla moom boole bu jeex bari heure boo ko tooñee autoroute la lay xaar xam fu la xaar ay APS yàlla bu mi bouché wala kalu rek di la temporiser ba nga ñëw. <laughs> dégg ngeen ko apayage <laughs> la lay xaar <laughs> kon boog def leen affaire. Mhm. jëm si fii nii Pikine wala Cambérène du la wax dara apayage lay xaar rek xam ne yaa ngi ñëw. ba tax na papa. leneen lu ma bëgg situation bi buuse nag nga xam doo mun a doo mun a jaar ci bor bi doo mun a jaar. doo rëcc. <laughs> am na solo beneen bi ñu wax mooy dañoo seetlu benn affaire ci tamxarit mooy tamxarit bu jotee maanaam tamxarit bu njëkk ba léegi sax moom mun naa ne xale yi bàyyi valoratuñ ko xamatuñu sax valeuram mooy tama dañ doon gis tamxarit bu jotee deru xar danga koy weer ba mu wow nga xëcc sa potu tamaate daat ko ciy takk wut sa bant di tëgg loolu mooy jox rythme ñaan taaja boon bi moo koy neexal bopp xar bi yeel yi yëpp lay denc ba lii lii ma lay won ni seel la su ma jabar ko seel man seel rek lay dunde xar bi damay jël genn waay yëpp lay def seel xam nga xëlwa waaw bu tamxarit jotee nga jël ci xëlwa bi tegal kati kaay kaay kaay nga toog nii ki sama yaay. ah dëgg la ne sax. waaw ñi de dañ ko joxatul valeur bi. ndax mag dañ ko daan def. bu nu këpp tëlee bu bu reere ba ba këpp këpp bool yi. ñaan li ñuy ñaan ñaan li ñuy ñaan yooyu ñëpp raxasu. dañ koy denc boo feebaree ñu sangal ci wala ñu diwle ci yàlla def ci jàmm. waaye kañ nga gëj a gis loolu wala ci jumaa ji ñu def fa ñaari nag di joxe par ndar te genn wàll gi ñooy jëndal seen bopp te bu ñu fàttali fi maam bàyyoon boo ko bàyyee rek gis ko. léegi ñu wax ci tama bi ñu doon def pourquoi ñuy def loolu pourquoi tamaam ñuy jël der bi takk ko ci pot tamaate jël lii di tëgg. loolu lan loolu pour xumbal la fo rek fo am na ñoo xam ne sax xale yu ndaw yi léegi ñoo koy def jël léegi moom daa raar sax léegi daa mel ni amatul sax. man dama ne bi nekkee xale ñun ay yére jigéen la yu sol suñu jabar yi sol yére góor ñu tam xarit yi dugg ci géer yi man daanaa tam xarit daanaa taajo booni yor ay deux cent mille. ndeysaan wallaahi da ndax dama xam fi may tax taajo booni ji mais nag xale bu fa nekk la ñuy dugg ñi xale yu ndaw yi ñoom amuñu problème ñi am sax ay vingt ans ay dix-neuf ans amuñu problème. waaye ponk yi nga xam ne dañ cee rax di dolli agressé ka sàcc nan ko ba tam xeetu pour agressé ka sàcc nga ne nan la ñuy tam taajo boo ne yaay bàyyi mooy mu ne taaja boon au suma taaj bi balaa ma koy bàyyi taaja boon ne taaja boon Abdou Jàmbar ñaari malaaka la ci kaw lay jóge daan ci sa burub ne la julli nga nga ne déedéet ni woor ngaa nga ne déedéet natt nga mburum koor nga ne déedéet mu ne jagat leen jagat fu ñu ko jabar jabar jawe ci sawara sa ñu taaja boon mm-hmm. Abdou jàmbaar ñaari malaaka ci kaw lay jóge julli ngaa nga ne waaw woor ngaa nga ne waaw natt nga mburum koor nga ne waaw mu ne jagat leen jagat fu ñu ko jabar jëme mu ne ci àjjana sa mm-hmm. xam nga yooyu ay cosaan luñ fi maam bàyyi woon la mi ngi mel comme ni la bande rare la taaje bon rare léegi wala ci kukaw yi ñoom dañ koy def correctement ni ko mag ñi daan defee la ko xale yi defetul léegi li ci ëpp sont de malfaiteurs par ñu bàyyi sax da nga bàyyi seen doom ñuy taaje bon yi parce que ñi dañ dinañ leen agressé ñii ñu violé leen ci allahumma sali chaque jour nga gis ko wala nga dégg ko mais ne nit ñi fàttali sosaan xam ne cosaan nii la nga def ko mu jig la boo wàccee sa ànd rek ànd boo jub fekk ci boroom mu toog xam na ma dégg ñoom boo wàccee sa ànd ànd boo yëg mu toj ngay fekk borom mu toog ca di la xar am na ñuy taajaboon correctement am na ñoo xam ne taajaboo na tunu dañ cee rek te ñoo ñu xej na yaakaar naa ni dëkkuñu fi soo ko dem malfaiteur na ko ñëpp yëggandoo ngeen bàyyi xel ci ñi taajaboo nag ñi agressé bàyyi xel ñi nekk ci tali bi léeg-léeg ñu fëgg sa woto ne nga gestu keneen ka jël fële ak ñoo ñu jor kii nu mu tuddati scooters yi ñett ci benn scooter dañ lay ba mag nga daanu kenn ki jël bi dem ñaar ña topp ko nañ bàyyi loolu na nit ñi yeewu force reste la à la loi nul n'est au-dessus de la loi yal na yàlla jàmmal ñëpp ci barki Seydina Muhammad ñoo ko déggandoo loolu mooy lal suñu papa suñu maam Doudou yaay kat yi Lamin muqaddamo Mamadou Lamin Abdoulaye Baab Amina Tayyab Abdul Muttalib Asim Abdul Manab Xuzay Kilab Muratak Abluway Xaalib fii maali ni dar kinaanatu xusaymatu murikatu Ilyaas mu dar nizar mat adnaana sëñ saamo saam na moon naa la yar na la yàlla ar ar Sénégal gépp ku ñu nar a ja musibaal ba ñu fàtte yàlla yal na ko yàlla sol ba mu fàtte yàlla. amiin amiin am na xol yi tàppe ñëpp bokk ndey ak bàyyi ni ko El Hadj Abdou Aziz Dabakh maa daan waxee. yal na yàlla tàppe xol yi ñëpp bokk ndey ak bàyyi doom déggal ndeyam ak baayam bàyyi yërëm doom yërëm jabaram. boo bëggee jigéen bay séy moom da nga koy def ni yaay koo def ni sa yaay di nga ko yërëm yal noonu yàlla suturaale. may gërëm sama aji xott saw law <laughs> yal na yàlla jàmmal yéen ñëpp. amiin bon papa dañu lay bàyyi nga tàggatoo ndax émission bi jeex na waaye ñu ñëw nañ egsi nañ ci kii bi jeex na dañu lay bàyyi nga tàggatoo tàggatoo téléspect tele suñu mbokk internet yi lay seetaan waaw wax leen dénk leen incha allah ñu daal dama bëgg rek Sénégal ñu ñëpp ñu ànd bokk ndey bàyyi bañ di ànd di gërëmante tàggoo di xastante koo gis def ko ni sa bopp képp koo àndal mu nar laa jaaxal ba ko fa. wala nga gis muy def loo xam ne du sa jëfin ba ko fa jigéen day xam boppam day sàmm boppam day mi xam ki mu doon par léegi xale yi da ñu bari dañ bari caaxaan man bu ma génnee guddi nii damay gis ay damay gis dama damay nii laay bu ci toog ci benn place di xool rek ma ne ni ñuy tàgguloon seen yaay wala seen yaayee leen yebal yaa ça aussi am na ñoo xam ne dañu dañu dañu taxawaalu dëkkali góor kooku di leen liggéeyloo ñu jaay seen bopp di ko jox te la plupart du temps di da ngay waaru war nañ seetaat éducation bi sàmmaat xale yi ci barke Mouhamed mu tëdd mi parce que nit ki boo ko sàmmul du xam fu mu jëm day ruur toolu jàmbur te kurtu ruur toolu jàmbur ñu jàpp la na jigéen ñi seen bopp nan ma baal ndax jigéen ma jur te ko respecté suma yaay laa nan ma baal xale yi nan fonk seen bopp sàmm seen bopp respecté seen bopp xam ne ku fi baax ku mu doon ku ne jigéen a sa ndey waaw te koo jënde sa ndey sa ndey ko gën bu sa baay baay bu ko neexee ne juruma xam nga góor du wasin lu tax xale yu bari di ëmb di jur di sànni pooy sa bopp bañ nax la nga xamoo dem ca waajo mu ne du man nga jël sa doom sànni ñu yóbbu la ci bi tëj la ba ay 10 ans ki 20 ans yaa ko teg sa bopp nit day xam boppam sàmm boppam xam li muy jar jigéen dafa war a xam boppam di ko coon waxee ndax jigéen xam na boppam coono dàqawee ci àddina moog booy yuusu ñoom ñaar ñëpp maa leen jàngal coono yuusu yëpp foto maag maag maag coono nga ne gis nga foto bële maag coon la fii nii maag bu seen juuf fële maag ay de sàmb sama doom yëpp a ngi nii genn wàll gi ma jàngal wooy ku ci nekk yaa ngi fii maag sa waaye nga ne sa waykat kële kii la nu mu tuddati waaye maag ak keneen ki kii kële bëri mu mën lépp la kële mooy Idrissa Diop fee man ak maam góor jasaaka kële mooy ba Baba Diallo Salaam Diallo nga nele ca kaw nit ki mooy xam boppam pour mun a xam nan lay dundee kenn mooy sama xeet petit mbay dama bëgg nga jël ko ne ko ba ñëpp gis ko xool ko yaa booy après nga jël ko premier nga ne waaw yal na la koy yàlla jàmmal jàmmal ñu barki Seydina Mohamed sama yaay xaar mbaye nga ma jàngaa nga ne le Ousmane Seck sama xarit sama rakk nga ne sam pap du Ndiaye Rosa nga ne ca kaw am yoo xam ne sax yorom yorom damay toog jël sama clavier di jël sama bopp nekk à nanu yàlla jàmmal ñu yar xale yi sàmm leen teg leen ci yoon éducation de base ci kër gi lay commencé bala ngay dem fenn boo yarul ci kër gi boo génn ci mbedd doo yaru am na solo am na solo gisoo doomu doomu kanaara bu ceeb këf doomu ginaar rek lay këf hmm, du caaxaan. gërëm comme émission gërëm ñëpp man ñëpp laa boole gërëm yàlla nañu yàlla suturaal suturaal ñëpp barki Seydina Mohamed mu tedd mi waaw xam ne nag moo jàngal suma doom métier. di magay ndiir yor ay atelier tailleur bay di ñabal ñu bëree bëri moom fu ma tollu dama koy sant di sant yàlla ndax mu ngi jàngal sama doom métier ba kooku mokkal na gërëm xale yi ñoom Fama Bàcc Mohamed Mohamed bi nekk Maroc bàyyiwuma kenn daal di gërëm suma yaay ndeykat yi di gërëm suma yaay Xadi Mbay bu baax a baax gërëm suma rakk yi yàlla na nu yàlla boole defal jàmm defal ko mbooloo mu jullit bañ di ànd di gërëmante tàggoo di xarabante loolu amul solo te ngir yàlla benn affaire dong laa bëgg wax Sénégal ñu xam ko nañ leen njiit sàkkul boppam nit sàkkul njiit yàllay sàkk njiit politique man je suis apolitique mais léeg-léeg ma seetaan télévision gis ñuy wax yéen a àndoon démb tey nga bëgg koo war rek bu ko yàq daram di wax lu ne te léegi laa mujj seetaan lu mel noonu lii nañu ñun sénégalais nañ yeewu ñi politique dañ ñuy nax rek koo ci koo ci faral ba mu dem nii bu jiitoo boo ko bëggee seet garde corps yi doo ko gis de yeewu leen gen di nelaw nii yal na yàlla jàmmal ñëpp barki Seydina Mohamed amin amin amin mbokk yi foofu la ñuy tëjee ak yéen di leen jox dig dajee incha allahu rabbi ci beneen émission spéciale tam xarit dem nañ dem seeti suñu beneen mag ju baax na nee nañ mag jar naa bàyyi ci réew incha allahu rabbi fii la ñuy yem di leen jaajëfal di leen wax incha allah rabbi à la semaine prochaine bu neexee yàlla allez ciao ciao li lana min muqaddamo Mamadou Lamine Abdoulaye Bab Amina Tayyab Abdul Mutalib Asim Abdul Manab Xuzay Kilab Murad Takab Luy Xaalib في مال ندر كنانة خزيمة مريكة إلياس مدر نزار مد أدنانا سن سامو سامنا منالا À votre service.